Salam la famille, j'espère que tout le monde se porte bien. Euh, la leçon d'aujourd'hui me concerne l'unité des déterminants démonstratifs ou bien les adjectifs démonstratifs. C'est la même chose. Ginnaaw bi nga xam ne defoon nañu les articles définitifs et les articles indéfinitifs et les articles partitifs dernièrement. tey ñu ñëw exposé li nga xam ne moom mooy euh, les déterminants démonstratifs ou bien euh, les adjectifs du aju ay revenus yu gudd euh, parce que c'est euh, très balaa loolu ñu leen di rappelé waat réclamé waat encore une fois pour que ngeen abonné sur la chaîne bu fekkee abonné gu leen te bés cloche de notification bi pour mu lay informer li nga xam ne moom mooy les nouvelles vidéos yi nga xam ni euh, exposé nañ ko après bien. ginnaaw avant loolu ñu leen di indil yi nga xam ne moom mooy. quelques ci ay exemples ci démonstratif balaa ñuy dugg ci la définition des déterminants démonstratifs d'abord Jona habite sa vie à château Jona mi rek ci biir château bu mag bi mooy xalaa fi la bu yàgg bi cette dame c'est la concierge de cet immeuble jigéen gi sayida bi moomoo moom mooy gardien bu jigéen bu bu bi cet appartement est moderne dafa en dafa dëppoo ak jamono ji dafa bees tuuti ay livres sont à année livres yi yëpp année ko moom kon defe naa loolu leer na ni ci intéressé rek moom mooy les démonstratifs yi te mooy sa set set set c'est ainsi de suite wala ñëw ci nga xam moom mooy la définition euh, déterminant démonstratif euh, le déterminant démonstratif sert à montrer un être personne ou un animal ñu ko ngir wane benn nekk benn jëm wala benn animal ou une chose qui est connue du locuteur et de l'interlocuteur wala ñu wane benn mbir boo xam te ne si ni mutakallim bi wax xam na ko ki ñu waxal xam na ko l'interlocuteur ou pour parler de quelque chose dont on a déjà parlé wala ngir diñ koy jëfandikoo ngir wax ci benn mbir boo xam ni waxoon nañ ko ci di jiitu moom nag il s'accorde en genre et en nombre avec le nom auquel il se rapporte moom déterminant démonstratif dañ koy jëfandikoo ba ànd nekk nom bi mu ngi ko ci genre bi mooy féminin wala masculin ak ci nombre bi mooy singulier ou pluriel defe naa ni euh, la définition bi leer naññi daal ñu ciy euh, revenir at déterminant démonstratif wala les adjectifs démonstratifs bi ñu koy xam mooy sa set set j'espère que c'est clair le nom administratif sa pour désigner le nom masculin singulier rôle mooy day junj ngir masculin singulier matin ku xam na ni masculin singulier moo tax sa ñëw ce matin ce soir aussi sept pour désigner les noms masculins singuliers commence par les voyelles ou un H muet seet dañ koy jëfandikoo ngir bu commencé benn voyelle wala mu commencé benn H muet H boobu kenn du ko liiraale sept artistes sept artiste ku ne xam na ni non masculin singulier la boo xamante ne si nii dafa commencé voyelle moo tax set la ñu utiliser bi ñu bëggee désigner set loolu leer na bi nga xam ni asmiya la commencé moo tax ñu lay jëfandikoo di nga xam ne moom mooy set pour désigner ko set avec deux T pour désigner le nom féminin singulier di nga jëfandikoo ngir junj nom féminin singulier bu jigéen mu annath mu ren mu annath cette voiture voiture ki nga xam ne mufrad ba ànd ta mooy nom féminin singulier la moo tax sept lañ indi sept mentor aussi tamit noonu c avec s pour des euh, le pluriel des noms féminins moo nañ koy jëfandikoo ngir junj pluriel yi jamono yi moo xam féminin la wala masculin n'importe qui de n'importe quoi ces hommes góor ji ces femmes jigéen ñi kon ñoo si bokk yam c'est la même chose forme composée adjectif démonstratif ou bien les déterminants démonstratifs, il y a ce qu'on appelle forme composée. Les démonstratifs ou adjectifs démonstratifs composés. Les déterminants démonstratifs est souvent accompagné d'un adverbe ci ou là qui se place après le nom trouve lié par un trait d'union. Les déterminants démonstratifs lépp bëri ci an bi bëri te ànd ak benn adverbe soo mu nekk ci soo nekk laa boo xam déplacé ci ginnaaw noo bi nga xam ne moom la ñu déterminé di ko qualifié. ginnaawam eh, lay nekk boobaa seen diggante moom ak adversaire bi benn trait d'union moo leen di séparé ñu ngi tuddee genre tir defe naa ni gën a leer ci exemple bi à cette heure-ci il ne pas dañ ci dégg forme composée parce que dafa composé ci set ak si adjectif ak ci adverbe bi la composé mën nañu dégg ko forme composée nga xam ni diggante si bi nga xam ne adverbe bi ak heure bi ginnaaw bi nga xam ne ñu qualifié. am na tiir du ñëw boo xam ni moo ngi seen diggante muy euh, tiir boobu loolu defe naa ni leer na ce jour là aussi tamit noonu gis nga fi tiir trait d'union moo ci diggante adverbe bi di la ak jour bi nga xam ne moom la ñuy désigner tu kon loolu leer na des fois kon yii nii ci anam yu bëri dañu ànd nag euh, ci biir phrase euh, boo xam ne am adjectif démonstratif yi dañ ci. dikkaale moo tax ñu leen tuddee forme composée yi defe naa loolu leer na forme yi nag am nañ ay anam yoo xam fa ñu leen utiliser d'abord un pour désigner ce qui est le plus près dans l'espace ou dans le temps période bi ci form composée yi ñu koy utiliser ñu koy utiliser ngir junj du jege moo xam loolu jege ci biir place la nekk wala ci temps exemple lii sa livre si livre bi il est intéressant livre nii kon lu jege lay junj. te loolu mel ne ci place la nekk te château la à plus de siècle boo tamit du jege la mais wala du sori la mais euh, ci temps ci biir temps la euh, dans le temps hmm. kon loolu j'espère que euh, c'est clair koy junj ngir lu jege wala lu lu jege loo xam ni ci biir place war ci temps defe naa loolu lenn ci exemple yi. ñaareel pour faire une distinction ou à marquer une opposition entre deux ou plusieurs personnes ou objets ñaareel mooy moom adjectif démonstratif composé dañ koy utiliser ngir xàmmee wala teg benn opposition wuute gu am ci diggante ñaari moom ñaari jëmm wala ñaari chose ñaari ay mbir opposition gu am seen diggante mu ñëw di leen ràññee je préfère ce livre si à ce livre là livre bi laa gën a kon day woon ñaari chose yi ñaari être yi ah ñoom ñaari choses yi am nañ opposition wuute nañ ba tax na ci daal di préféré bii ko bee defe naa loolu leer na forme composée ci troisième bi mooy pour insister su l'être ou la chose que l'on désigne ngir confirmer gën a ci être bi mooy euh, personne bi wala chose bi nga xam ne moom la ñu désigner kii dañ koy jëfandikoo ngir loolu ngir gën cee insister ce policier là il est très sévère dafa àndiif lool policier bi nga xam ne foofu dafa junj du jekk mi policier bi. Euh, ñu gën a euh, insister ci être bi di policier bi nga ne moo ñuy désigner pour loolu rek wane na ni ñu ngi utiliser pour ci place bi hmm, ñu gën a insister ci policier bi. Hmm. à cette heure-ci elle pas ou bien elle travaille pris ci heure bi di liggéey euh, nga xam ne foofu tamit defe naa leer na pour insister ci sur l'être wala sur la chose bi nga xam ni moo ñuy désigner. ah dañ koy ci utiliser maanaam forme composée ci euh, document démonstratif bu set bi mhm. defe naa loolu leer naa ñi en résumé rek i nga xam ne moom mooy la leçon de ñu ne document démonstratif day accorde nom bi muy déterminé en genre en nombre bu fekkee ne masculin la mi war ànd sa set sa set moo xam masculin singulier mu am ñaar yoo xam dañuy dañuy commencé voyelle ak asmuye yoo am nañ seen ki bopp soit mën nañu nekk masculin mu nekk boo xam ni euh, commencé voyelle ñoo tamit sa la ñuy benn bu nekk ak may àndal pluriel tamit noonu see lay ak see moo xam masculin wala féminin yi n'importe kii kon la defe naa leer na du aju ñu ci ay détails Korfaañ l'exercice proposé le benn exercice ginnaaw bi nga xam ne pare nañ ci l'explication de la leçon d'aujourd'hui euh, leçon bi ou bien l'exercice di euh, compléter les phrases avec le démonstratif qui convient phrase yi vide am case vide yi da xool avec démonstratif bu fa convient bu fa approprié bu convenable nga dugal ko fa à la fin de ne je change de programme j'espère que c'est clair yaay xool noo jéemee li nga xam ni moom mooy corriger euh, exercice bi jéem a accomplir cases vides yi jéem ko compléter avec les euh, objectifs euh, démonstratifs qui convient def naa ni loolu leer na la correction d'exercice moo ngi nii à la fin de cette année su change de programme change programme bi defe naa ni euh, dañu la bàyyi nga complété li nga xam ne moom mooy euh, liir bi nga xamee ko noonu balaa loolu di gën ci yow nekk préférable que mooy nga jiital corriger l'exercice bi avant ngay xool la correction bi nga xam ne si ni a déjà corrigé normalement boo ko defee euh, mooy gën a nekk lu euh, préférable ci yow euh, gën a nekk loo xam ne moom mooy gën a amee compréhension ba nga mën nga corriger sa bopp kon day wax dëgg dañuy leen fàttali ngeen abonné ci seen fekkee abonné gu leen pour être le premier à savoir quand une nouvelle vidéo est disponible au revoir.